Dakar notre plateforme d'info. ci këram xale ponk nag ndeyam ak baayam moo ay tey muy Ndeye Ndiaye doon xale boo xam ne sóob mu naa ko dee cinq minutes sax naa ko fi am ndax jaral na ma ko dafa doon xale boo xam ne exemplaire ñu koy ñaanal yàlla doomam yàlla ko yónni ci am ak salaam yàlla leen teral moom ndeyam ak baayam ñu ngi koy ñaanal yàlla ndey bu mu ragal yàlla bu ko gis yàlla bàyyi ko ak borom këram bu baax a baax di soog ko loolu asamaan lii d' accord ci exemplaire bi nga wax ni moom la ah, gis nañ ni aussi tamit artistes yu bëri dañ naan duñu ay sëykat te moom boobu tey demul dikkul ah, tey ah, Ndeye Ndiaye tey ak li nga xamante ni ñu leen koy wax aussi moom tey boobu ba léegi maanaam kon ni ma la koy waxee ban jàkkaar aussi nga am ci loolu.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 day fay ba wis maa la wax nii soppe yaa ngi fi di la xaar pour nga romb leen rek ñu woola mbaa nga fekk ci milieu rek ñu woola mbaa ñu fekk ci milieu yëkkati xaalis teral la ñu la dama doon seetaan sa benn euh, théâtre gis la ci danga maa neex yëkkati ala di la teral euh, Moustapha Diop bu 2 moo ma yóbbu maaka maa ngi ajaratu ndey kumba li wërsëg gi ma ciy for ci laa tabax sama kër ànd koog sama borom kër ah day fay muy wis. maman dèjà ndam nga gisee pëcc xaw bi nga xam ne dèjà mi ngi ci milieu bi euh, xale yu ci bëri dañu jàpp ne bu ñu sol lu sexy du ñu mën a euh, feeñ carrément rawatina yéen ñi nga xam ne ay rayukaay ngeen. xam nga lool dama koy faral di wax. Euh, quatre-vingt quatre-vingt-six laa jënd mm-hmm. te dama koy wax ba léegi xewee bu ma quatre vingt ba léegi xewee bu ma mm-hmm. dafa am noo ci comporté woo waaw dafa ci comporté woo lu sexy mm-hmm. dama koy faral di wax ni jaayul kenn ba mu jar au contraire dalay lay ñàkkal fayda day tax ku la war a respecté du la respecté muur say cër yàlla boo ko njëkk a santaane donc loo xam ne euh, ay millions yi millions yi ñoo koy seetaan da nga koo war a muur da war a suturaal da ngaa war a suturaal sa bopp. sexe man man nee benn benn euh, producteur ñi meew maa xool wala benn metteur en scène di ma sol loolu sexe ba ma ci tukkee ak parce que du ma ko doxee da ngay xalaat ne njaboot sa njaboot ëllëg di nga toog yaa ngi ñoom ngeen seetaan.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 ay ayca maman du ñàkk tamit duñ na laaj. Euh. waaw waaye defuñu ko dañ ma cee jàppale li may bëgg daal ci kër gi mën naa ko man kër gi dama cee am sax lu ma neex laa de def. macha bu ma ñëwee ñu aj ma ca kaw li ma defal lu nekk. Mhm. te buñ ma xoolee bët bi am naa bët goo xam ne moo ko xoolee dama koy xam. Mhm. waaye defuñu ko alsaan lu ma neex neex bu ma ñëwee fii lu ma neex laa mhm. dañ may toppatoo di ma beral lekk. beral man naan yëpp dañ ma ko beral dañ maa fuuyal. lu nekk lañ may di mhm. dëgg yàlla buñ ma xoolee woon bët boo xam ne xoolee woon dañoo ko xam nag. Mhm. bu boobaa dama fa yaatu mhm. ñoo war a jàppale Ndeye Ndiaye waaye man maa ñëw jàppale ko. ndax loolu gisoo ko booy euh, Ndeye Ndiaye ci kër gi ak Ndeye Ndiaye mi ci télé bi ban différence la am. am na différence dëgg yàlla. lan mooy différence du xool nit. boo boo ko nuyoo. génn na neex lay def. waaye nag bu së bu nekkee moom dong sëg mhm. kenn du ko xamal dara déjà day sëgg am na kersa macha allah yaru na mhm. defoon ci moom da yàquwul macha allah ban jox wax nga léegi nga ne sëy nga fi nga war a sëy toog nga fi war a toog moom en tant que doom ban conseil nga koy jox ci sëy bi xanaa mu defee ni ma defee rek ni ma sëyee ba ma toogee ba te jóguma maa ngi toog macha allah moo nag saabu du fóot boppam loolu nit a ko mën a wax mhm. waaye nag li ma ci mën a wax rek ni may sëyee day sëyee ndax ma ma sëy ba tey jóguma 92 maa ngi sëy xam nga la kooku yàgg na ma sëy ba tey ko toog lu ma nekkal ma naka yëpp kenn xamul ma toog ko seere ba tey ji ne yàlla may ma doon mel ma koy sant yàlla ndax defaluma yàlla li tax mu may damay sant na macha allah bëgg ji fu mu jógee day bëgg bëgg ji bëgg ji moom faaw nga moo ko bëgg moo ko bëgg ko fellal dafa am ay yaayu géwél moo tax. waaw jëkkër ji Alassane ah, bëgg ah ñoo ko taas ñoo naa ko nag xanaa retour bi di nga changé beneen modèle. waaye bëgg a ji. acca ñi ngi dégg ñu naan ndey ko mën a togg la dafa mel ni yaa fa jaar yow yaa fa jaar. macha allah hmm? ba muy xale. jàngam sax daanaka maa ko yàq. macha allah jërëjëf taxawaay taxawaay taxawaay taxawaay bu. waaw taxawaay boobu lay taxawaay la doon am ci yow. waaw li mu wax loolu la taxawaay bu baax lay taxaw ci man day ba mu xàmmee di ko ba tey macha allah lu ne def na ko nax man. di ambulant di ambulant di def lu ne. mbindaan sax def na ko nax man. mbindaan sax def na ko nax man. waaw di ma defal lu ne nag macha allah. day dafa teel a gré rek man daf teel maa lijjanti. Mhm. papaam lépp dindi moom rek moo tax man. xale xaw ma ci ñoom dara. Mhm. bis bu ne moom mooy moo di nekk moo tax ñaan yi ma koy ñaanal ma koy ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér ak yokku Ndeye Ndiaye ku ko xaar yàlla na xam yàlla na ko yàlla la faj may ko gudd fan ak wér yow sama ko biir ak bi ndax dama kontaan ci moom xam may sagal fu ne nag Ndeye Ndiaye sagal dama fu ne ñëpp puus ba ñëpp beddi moom mu téere